ci jaamu sunu borom. dëgg la saabu yi ngay wax. Mhm. baax na. Mhm. xam-xam gii ngay wax. Mhm. baax na. seet gii ngay wax. nit mën a dem xam sarax bu muy def mu génn ko ci. baax na. dëgg la kon ci gàcce ngalaama yow bul ko bàyyi jig na la. tey jig nañu ñun ñii. li tax ma woo la fi man maa ko xam. lii rek la woon. dëgg la waaye balaa ñuy dem fenn. du ma la bàyyeeku. ndax damay gis ci internet bi. ngay wax yow mii lu ñëwagul te phénomène la fii ci mim réew mm-hmm. am na nag ñoo xam dañ leen di baar de mm-hmm. am na ñoo xam dañuy wax par dara du ci am te booy yi léegi ci internet yi léegi dañoo xarañ boo fa waxee lu amul dañuy àndi benn teg ko nii andi benn bu am bi teg ko nii saabu yi nag gaa yaa may déy ne leen il faut leen ci yi d'accord naa gaa yaa may déy sama noppi dama ko wax ñoom lom ak ñoom saaliw waaw du dëgg kon donc ci ci ci politique bi jamono juñ toll nii senegal mm-hmm. yow mi nga xam ne yàlla may na la maa ñëw de sa maam doon sëy nag sëy ak jinne waaw kon am nga ay cousin ay cousine jinne jinne ja tudd ma dookaaka ma dookaaka waaw te la nga tudd nii léegi ci carte d'identité bi du ma ko wax <laughs> yaa dégg kon donc war nga ñoo war mën a wax yow tey Sénégal politique bu ñu toll nii moment bu ñu toll nii hmm. concrètement macha allah taxawoon nga fi ne Barthélemy Diaz boobu faloogul sax maire dëgg la mu nekk maire quatre mois nan la demee woon loolu waaw loolu da ngaa tëdd géntu ko wala lan man gént naa Barthélemy ci sous forme bi ma ko gént duma ko expliquer ñu bëri ba pare dama ci jaar di suñu mbokku chrétien yi waa kër instant ibnu Mariam. ndax mhm. pays layit lañ nekk. te mhm. ñoom it am mhm. man chrétien yi majeure partie client yi ma am. ay chrétien lañ. ñu ngi ci koor sax Diop. wallaay dañ may teral dañ may jox xaalis bu weex tàll may jëflante ñoom. ndeysaan dégg nga. ki ma woo woon ci turu Barthélemy kooku Portugal la nekk. Portu Portugal Portugal Portugal la nekk. ñu jëflante waxtaan mu am lu ma yónnee ñu jëflante ci ñetteelu fan ba ci laa yeewu ne ko bërki démb bi ma yónnee sa xaalis mm. tiit naa ba jël xaalis bi daw dem ci sam papa daa bari woon ne ko papa li ma li ma engagé doy na waar de ginnaaw la ma wan waaye doom wali yàlla di lekk ay million kii ah yàlla baax na waaye bi mu amee trois jours xaalis bi bi mu amee trois jours sama biir nekk lañ ma wan li ma war a gis ci la ma ne ko ñeme naa fëgg sama loxo ne mooy jël mairie mairie Dakar waa ji ne ma ah ñeme nga nit ñëpp toog nga wax ko ma ne ko waaw waaye nag fa njëkk a jaar moo tax nit dafay xam farda ayn mooy faratay jëmm uh-huh. zoo tey maanaam alaaji Cheikh Ndiaye munuma laa bëgg ba lekk ci sa palaas munta ne munuma laa bëgg ba sol yére ci sa place munta ne munuma laa bëgg ba jural la doom ci sa place munta ne comprendre nga mhm. ñun jigéen munoo bëgg sa morom ba wasin ci palaasam dëgg la loolu mooy far farda ni sëriñ su bari nag loolu lañ ràññeewul tey man yow Jojo liñ ma boole intention bi ma ci war a am ak wane sama may ci yàlla warta bokk li may wax ci mbedd bi mhm. nañ am dignité waay dëgg la nañ yokkaat sunu place fi mu war a tege dëgg la ka ndax kooku daf ma engagé ci turu Barthélemy mhm. ma defal ko ay ñaan ci turu Barthélemy la mu amee ñetti ma wax ko li ma gis a quatre mois mu mu am mu soog di am maa ngi koy fàttaliku bu baax yaa ngi dégg gis naa ko beneen affaire bi mooy mhm. na nit kuy ñëw ci yow mhm. yow ci sa bopp yow mi mu seet si moom mi ñëw moo la ëpp ay jaaj Mm-hmm. comme tey yow nga ñëw seet si ma mm-hmm. ma xool samay bagage xam ne sa rawaan moo ëpp doole sama rawaan fuuf lu moromam mm-hmm. li la ciy génne mooy nga xaritoog nit ki seen rawaan yi lëkkaloo sa doole yokk mais soo ko imposé dara rek mm. da ngay waye di dëgg la yu bari wallaay dëgg la comprendre nga waaw man nag ah, si lu may wax rek xamal ne loolu maa ngi ciy liggéey leer na léegi ñu ngi jëm ni deux mille vingt-quatre Sénégal yi ngi naan troisième mandat Macky Sall. ñi ngi naan Sonko kaso lay dem du bokk. yow mii nga xam ne da ngaa xaritu ki jinne ami ki mbokk. lan nga gis loo xam ne ma koy may fii ma toog nii. mu leer naññ. yow lan nga gis yow ci réew mi. fu ñu jëm man maanaam deux mille vingt quatre. waaw bi nga xam ne mooy ñëw. waaw ñetti interview yu ma def temps yi yëpp. waaw damay exiger nit ñi nañuy ñaan allahuma yi na yokk. allahuma. maanaam nit ñi nañ toog di wax allahumma nañuy ñaan nañ dellu di ñaan waaw parce que man li ma gis waaw ñemewuma ko est-ce que comprendre beneen affaire bi mooy bi Sonko di dem Mbàkke hmm. deux jours avant mhm. laa toog ma ne leen lekket gi de saxaar la ma wan hmm. boobu kenn gaañuwul kenn deewul yàlla def na ci sutura tàqul est-ce que comprendre mhm. ay saxaar moo fa amoon mais dama la bëgg a expliquer ne la deux mille vingt quatre képp ku am ñaan gu baax ci sa réew te nga bëgg ko. def ko ñaanal yàlla def jàmm. Macky Sall mii nag. Mm. wax dëgg yàlla ku ne gis na honneur bi mu defal Mame Moustapha Guèye. Mm-hmm. muy sama deret di sama fierté bu bëggoon ma nag lool. Mm. man Macky xaw ma ko yabaluñ ma ci moom yónnewul ci man. Mm-hmm. waaye billaahi dama koy ñaanal yàlla. ndeysaan man loolu sama affaire la mais deux mille vingt quatre. gisoo troisième mandat bi yow wallaahi lëndëm lëndëm kese. nga gis laa ci gis. est-ce que comprendre nga maa ngi doon wax ci benn interview ne hakim yi nga xam ne yàlla defoon na ko fi hmm. nañ wax nañ leeral Cheikh Ibrahima Fall hmm. wekk koo wóolu gi sëwru Fall hmm. man du murit waa kër Baye Niass la mais dama bëgg maam cher Fall dama ko doon gént lu yàgg ndeysaan bi ma koy gént may gëstu ci moom parce que am na ñoo xam ne ay jaahil leen dañ ko doon wax jàngul mais bi ma gëstoo gis naa ne jàng na te boroom xam-xam la ah, <laughs> fekke woon na benn mirage bu yéeme. waaw boo xam ne kilifa ga ba muy gaañu dafay dafay gaañu mu bàyyi ñeenti jaam ak ñett ñu bokk ndey ak baay. kilifa gi di dee daan ne bu ma deewee na seddoo séddoo jaam ñi na na ku ne am ñaar. Mm-hmm. kenn mënu koo mirage. Hmm? kilifa gu fa jaar ne ah ñeent. ak ñetti doom. Mhm. nan la ku nekk di amee ñaar ko dafa mel ni mi ngi laal micro bi tuuti ah Saliou. baax na waaw acca kon waaw. Mhm. ku ñëw jàll. Mhm. maam Cheikh Fall ba mu fa ñëwee fanaan ko ñu yotal ko ko mu ne ñëw ma séddale ko. toog mu ne ana rakk ji mu ne moo ngi nii mu yëkkati ñaar jox ko ki ji toog mu ne maa ngi nii mu yëkkati ñaar jaam jox ko jaam ña jeex nañ. waaw waaw mu ne ko ñaari ñii. yow yaay taaw mu ne ko waaw mu ne ko sa ñaari rakk yi ñooy say jaam lii la seen baay wax allahu akbar ay maam seex waaw kon xam nga kooku ci yàlla atte na loo xam ne lëj na te ci hakim la ko atte est-ce que ci seerafal waaw kon nag Sénégal am na lu ne am na ay richesse am na ay borom xam-xam am na ay borom jàjj waaw lépp fi am jërëjëf xanaa bañ a nanguwante rek ndeysaan jërëjëf nañ rafetal xol yi te yokk ay sarax waaw jaaykat yi génneetuñ azaka mm. borom xaalis yi mm-hmm. wàññeekuñ xool ñu néew doole mm-hmm. Mm-hmm. ah bañ yàlla gaan ci nag de sultaanul jalaal ma ci de soxna Zeyda jërëjëf ci lii nag lañ leen soxlaa su fekkente ne taxaw nga fii gis de mille vingt quatre ay saxaar ak lu lëndëm kese. fii lañ leen soxlaa. muy yéen ñi yàlla may. ngeen ami ñaan. muy sëriñ ci. muy sëriñu tarixa muy imaam yi. képp ku yàlla may xam-xam. fii la la sénégalais soxlaa. dëgg la moom laay wax. di kar lu ñëwagul. moom ngay wax léegi léegi. dëgg la. man corona ba mu ñëwee senegal damaa am lu ma métti lool. non non non il faut ngeen amal ñu njëriñ su ngeen ñu amalul njëriñ ngeen noppi non dëgg la ñun yéen la ñu gëm. dëgg la. yéen la ñu yàlla booleel. Mm-hmm. yéen la dénk xam-xam. Mm-hmm. ngeen jàng ko xam ñaan yi xam secret yi. Mm-hmm. muy yow ak muy say fukki morom ñi xam nag laa wax waxuma ñu fi nekk di naxe. ku fi naxe man ku ne dinaa la daane ci mim réew fii. balaa deux mille vingt quatre man loolu xam na mais yéen ñi xam. bu fekkente ne mënu leen a kar musa gi ñëw ci réew mii. lan ngeen ñu jëriñ. waaw loolu dama la ci wax. ñaan ñaan réew mi dal réew mi warut tàkk. nañ dellu ci njàng ba tey ku tëdd fi ñëpp fi tëdd ñu baax ñu fi lañ tëdd. kaay ma expliqué na la réew mi dal dal dal dal. waaw loolu mënul nekk. lu xam lu tax mënul nekk. Ah. ci ki bon la ñuy xamee ki baax li yàqu la ñuy xamee li li li defaru yonent bi. foofu tëddoon dara war ta yàqu. dama laa bëgg a expliqué loolu. loolu jëmm yàlla ji la moom dooleem la puissance am. yow mbas amoon na fi. waaw waaw d' accord naa. dégg nga d' accord naa Cheikhou Tidiane. ay waajuram. pest moo leen yóbbu. waaw feebar bu ñu doon wax peste. est ce loolu yàgg na ci kawlu bi. te mënu ci woon dara déggoo ma de. Mhm. dama ne la bañ ak yàlla gi xanaa déggoo ma expliqué li ko. loolu sax ko teg. Mhm. yàlla gi dafay am. Mhm. gis nga jamono ji nga xam ne wax nañ benn dëkk boo xam ne. koor jigéen yi dañ fa bëri woon mhm. alak dafa ñëw dal seen kaw mhm. sunu borom dafay am des mhm. yenn sëriñ Saaliw mu tedd mi luñ daan wax dafay taawu balaa yi dégg nga mais loolu mënul ñàkk loolu jëmmi yàlla gi ci la bokk lu neex ak lu naqari ci la bokk feebar ak wér ci la bokk dund ak dee ci la bokk guddi ak bëccëg ñoo ànd xorom suukar daani nangam d'accord naa xam nga wax nii mbas mi mbas mbas mën na nekk natt suñu borom d'accord naa d'accord naa musiba yi bëri ci réew mi sobe si bëri ci réew mi yàqkat yi bëri ci réew mi seytaane yi bëri ci réew mi yàlla nattuñu ak mbas loolu bëri na ci àdduna bi mbas nangu naa peste yeeg corona geeg yëpp nangu naa waaye deux mille vingt 2024 bii ndax ay politiciens waruta ne waaw yii ay nit lañu ay politiciens ñoom ñoo ñu sonal di ndax ñoo ñu teg fitna gi yëpp ñu nekkee warta ne yéen lu ngeen mën ci ñaan def leen ko ñun ñii nag topp seen ginnaaw tamit lu ñu mën ci ay sarax digal leen ñu ko ñu def ko kon loolu lañ leen di ñaan waaw li ñuy wax rek comme li ma la wax nii rek 2024 man dama koy wax chaque jour di ko waxaat ndax nit boo nekkee nit am réew nga nekk fi di ci am dara di fi tekki di fi dimbali jaami yàlla yi sa wërsëg yàlla def ko fi dëgg-dëgg même bu fi sa wërsëg nekkul hmm. deel ñaanal bitim réew del ñaanal bi réew mi del ñaanal borom réew mi mm. surtout ak les parce que ñaan moom jërëjëf waaw damay différence rek ndax ñaan ñun ci xeet Seydina Muhammad lañ bokk yonent bi su doon ñaan dafa doon wax euh, nax nu yal nañu yàlla may Seydina Isa bu doon ñaan da doon wax ana looloo waral tubaab kudd ak kudd la xam ak palaat ñun ñuy toog ci bool di ko boole parce que kee dafa doon boole xeetam bi kii daf doon wax yal na ma yàlla may comprendre nga mm-hmm. kon nag yal nañu yàlla defal jàmm amiin yaa di sotti ci réew mi askanu sunu gel amiin di wax nañu bàyyi xel tamit amiin yaa rabbi jigéen yi nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi waaw violence conjugale am na mm-hmm. violence physique am na mm-hmm. ñun ñu ngi toog ci néegi léeg-léeg nit seet si la amul volonté bi nga am mm. su demee da ngay toog di jooy parce que man ku ma déggal am na yenn toro toroxal yoo xam ne doo ko dund. ndeysaan waaw ndax yàlla rek ngay bëgg te doo ci am pertement